بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي xayri murabbi xadra ma xal min iqtidaai bismillahi alkarimi almuin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ala alihi wa ashaabihi wa xayra xadimihi almakin amma baadu salaamaaleykum wa rahmatullah bokk yi fi teew kilifa yi ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu ci nuyub lislaam eh, di leen ndokkeel ci weeru koor gi di leen ci baalu di leen ci tatagal di ñaan suñ borom mu may ñu tawfeex yi niñ ko tàmbalee ba dundal ko ba mu egsi fii mu mataleel ñu ko ba mañ koo ba bañ mën koo eggale ci noonu ca lépp ànd ak ngërëmam ak ci fayam ginnaaw loolu nag niñ ko baaxoo defe waa académiyatu daarul karim mahrusa li xefsi turaas islaami wa nafsi saqafati yi eh, ay bis yoo xam ne dañ koy faral di def di ko dundale weeru koor gi ngir eh, jëmmal weer wi ci màggam ak dundal ko ci lislaam tay nag ñi ñëwaat di ko defaat comme ni niñ ko baaxoo woon a def indiwaat euh, benn point benn tomb boo xam ne dañ ko bëgg a tas euh, faram fàcc ko ngir njariñ li mën a yaatu lool ci nit ñi tom boobu nag moom lañ naan mansiltu ramadana inda cheikh al xadim maanaam euh, weeru koor wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko sunu yaakaar cheikhul xadim joxoon wàccuwaay boobu nag moom lañ war a waxtaane tey ngir njariñ li mën a yaatu bu baax a baax ñi fas yéene koo séq ak boroom xam-xam bu mag di mbokk mu baax ñu koy wax sëriñ Sambu Son Abdul Wadud sëñ Sambu sëñ Sambu Abdul Wadud nag euh, moom mi ngi gane àdduna fii ci Mbàkke Bawol foofu la gane àdduna daa di tàmbalee njàngum alxuraanam foofu ci Mbàkke ci ku ñuy wax sëriñ mbay jatara ak sëriñ mbay saaxo ñang bim ko jàngee ba wattu ko comme ni ko doomi soxna yépp di defe wéyal na am njàngum diineem ci institut bu ñuy wax mahadu cheikh al xadim li tarbiyati islami wa taalim foofu ca Mbàkke foofa la wéyale am njàngum diineem ba fa la amee chanre ihtidaariya ñi koy wax BFEM ci loolu mu daal di dem ci institut al asar bi nga xam ne moo nekk fii ci ndaam foofa fa la nekk di wéyal am njàngam da fa la amee liñ naan shahada thanawiya ñu gën koo xam ci baccalauréat mention très bien loolu mu ngi amoon ci atum 2008 ci atum 2009 moom Serigne Sam wéyal na ab gëstoom akum njàngam ca bitim réew daal dem fii ci ca Tunis ci benn université bu ñuy wax jaamiatu Saytuuna foofa nekk na fa diirub ñaari at ginnaaw loolu euh, wéyal na ab gëstoom dem ca France ci benn université bu ñu naan Jean Jaurès ca Toulouse foofa ma nga fa nekkoon ci benn euh, faculté bu ñu naan kulliyatul luqaat wal aj na xadaraat ajnabiya faculté des langues des civilisations étrangères département des langues arabes foofa fa nekk ba fala amee li ñuy wax cadrul ijaasa muy licence waaye sëñ Sam taxul mu bàyyi dafa continuer dafa wéyal ab gëstoom euh, ci même jaamia boobu euh, ci beneen kulliya bi ñuy wax kulliyatu ulumul insaniya wal ijtimaiya ismu tarbiya wa takwin faculté des sciences humaines et sociales département de l'éducation et de la formation foofa nag fala wéyalee am ak gëstoom ba fala amee li ñu naan licence ak maîtrise li mu jëmbale woon ab gëstoom nag ci maîtrise boobu mooy li ñu naan la formation continue de instituteurs sénégalais maanaam luy xóotal jàng ak jàngale ci e, jàngalekat yu sénégalais yi ak lu jëm ci wàllu tàggatoo yu demee noonu ci loolu nag ci la ñibbisiwaat fii ci Sénégal ci atum 2017 bi mu ñëwee yàlla dogal mu participer ci konkuur concours boo xam ne lu jëm ci jàng la ak jàngale ak tàggatoog yu demee noonu ñu koy wax la faculté de sciences et des techniques de l'éducation et de la formation loolu mi ngi ko amee woon fii ci ndakaaru ginnaaw bi mu euh, jeexalee loolu ba ñibbi si waat maanaam lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak tàggatu ci wàllu xarañte ginnaaw bi yàlla dogalee ci taw tawfeexam mu réussir loolu mu jàll ci ci jàllin wu mucc ayib nekk fii di yëngatu ci wàllu jàng ak jàngale ginnaaw gi ci lañ ko namee fii ci université daaru Mouhty moom Serigne Sam membre la ci daayira bi ñu naan Rawdu Rayaahiin moom it dina amal ay conférence yu baree bari ci ëttu diine yi fii ci senegal naka noonu dina ko amal ca bitim réew kii nii nag ci wàllu xam-xam bu yaatu ak jaaru jaar bu mucc ay macha allah moom lañ war a séqal suñu waxtaanu tey wii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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وخديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dollee sant suñu yaakaar cheikhuna cheikh ahmad bamba ñoo ngi ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ muntaqa mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ tuuba suñu waroom bàyyi ko suñu kanam ba mboolem naal yi nga xam ne sumb na ko mu mottale ko ci anam ga gën a mat te ñu ànd ko ak moom naka noonu di ñaanal suñu kilifa gi nga xam ne mooy sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci bopp këru sëriñ Masamba moom it di ko ñaanal lool yi suñu borom may ko wér may ko fan wu gudd lool ba li nga xam ne moom la yéene it mu mottali ko ci suñu kër maam jooju naka noonu di ñaanal lool it suñu jur sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Fati Xari di ko ñaanal bu baax a baax a baax wér ñaanal ko bu baax a baax gudd fan ba li nga xam ne lépp nësër na ko mu mottali ko di ñaanal loolu yi mboolem njaboot gi nga xam ne mooy njabootuk ma Massamba gi nga xam ne ci keppaaram lañ nekk tey di nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi euh, rawatina académie bi nga xam ne mooy académietu Daarul Karim bi nga xam ne ñooy amal waxtaan wu am solo wii euh, ndax pàkk bi nga xam ne moom lañ koy defee day pàkk boo xam ne euh, lii moo ko sos ndax bi nga xamee ne sëriñ bi woona sëriñ ma sàmba sëriñ Modou Moustapha sëriñ euh, Fallilu ak sëriñ Mor Roqee Bousso digal la leen digal leen ñu dem sant sanc ay dëkk euh, te sëriñ Masamba ñëw ci pàkk bi nga xam ne moom la sanc tey nga xam ne lii dong ko fi indi woon muy jàng ak jàngale ak liggéey kon bu ñu fi amalee waxtaan yu mel nii day mel ne ña nga ca euh, cosaan li nga xam ne moo sosoon borab barab bi kon di am mbégte bu baax a baax a baax ci kuréel gi nga xam ne ñoo taxaw fii di amal jataay yu am solo yii di leen ñaanal bu baax a baax suñu borom yokk leen kàttan suñu borom defal leen tawféex ci mission bu am solo bii nga xam ne moom ngeen di amal fii kon ni ko sëriñ bi waxee rek dañoo sàkk woon ñu amal waxtaan woo xam ne day jëm ci wàccuwaay wi nga xam ne weeru koor am na ko ci ki nga xam ne mooy suñu sang Serigne Touba ku ne xam na ne weeru koor day loo xam ne lu am wàccuwaay la ci lislaam ba tax na kon incha allah ngir euh, waxtaanee thème bi euh, xam naa dañ koy xaaj ci ñaari pàcc yoo xam ne yu mag lay doon bu njëkk bi danañu wax ci wàllu koor ak ngëneel yi nga xam ne moom la làmboo pàccum ñaareel bi ñu ñëw ci wàccuwaay bi nga xam ne koor googu am na ko ci dunduk sëriñ bi moom it dana séddalikoo ci ay pàcc yu xawali mu tuuti mbokk yi koor buñ ko waxee baatub arab bi muy as-sawm wala as-siyaam buñ ko waxee ci baat bi li muy firi ci arab dañuy wax ni mooy al imsaaku maanaam bàyyi foofu dinaa fi leeral tuuti ci baatub imsaak ndax léeg-léeg buñ koy firi ci wolof dañ koy fiire jàpp dëgg la loolu mooy cosaanu baat baat bi waaye baatub imsaak day li li ñuy tuddee ci arab minal addaad baat yi nga xam ne day fiiri mbir akub safaanam ndax bu ñu waxee amsaka bi maanaam bu àggeek bu àndeek xarafu ba day firi jàpp waaye bu àndeek xarafu an day firi bay nga xam ne kon ñaari safaan yépp ñaari ba ñaari maana yépp baat bi daf koo làmboo waaye fii buñ ko fi waxee ci wàllu as-sawmu kon maanaam mi nga xam ne mooy amsaka an lañ ci jublu mooy bàyyi kon buñ koy firi mënees naa wax bàyyi waaye buñ ko firee jàpp rek ca cosaan la mën naa réeral ñi nga xam ne ñoo mel ne man ñi nga xam ne euh, xëy na seen ràññee bariwut lool kon ci baat bi loolu lay firi maanaam loo man di bàyyi rek mën nañoo jëfandikoo baatub as-sawm wala as moom nag day ab ponk ci ponki lislaam yi ponk yi nga xam ne ni ñu ko xamee muy juróom moom benn la ci ci ponk yooyu ponk yooyu nga xam ne njullite kenn ci julli ji munta mat lu dul ne daf leen sàmmoonte def ci kem kartanam suñ borom nag da koo faratal ci mbooleem jullit ji ni ki mu ko sa euh, faratale woon ci xeet yi nga xam ne ñoo jiitu woon muy ay bés yoo xam ne nag yu ñu xam la léeg-léeg dana faral di nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent léeg-léeg mu nekk fanweeri fan muy bis yi nga xam ne jullit bi def ciy terewoo maam def ciy bàyyi lépp loo xam ne luy dog koor la luy dog la tàmbalee ci bu fajar gi fenkee babaa jant bi di so waaye nag ànd ak yéene joo xam ne da koy def ngir fas yéene cee jaamu yàlla kon bàyyi googu nga xam ne moom la jullit bi di bàyyi loolu nga xam ne day yàq koor bu koy def faw day lëkkaloog yéene ji nga xam ne mooy yéene jaamu yàlla moom koor nag dafa bokk ci euh, yi nga xam ne mooy jaamu yàlla yi gën a kawe yi gën a màgg yi nga xam ne dees na ko def ngir mën a jege suñu borom ki nga xam ne da ko def muy ab jullit ca anam ga nga xam ne moom lañ ko sàkkoo ci moom dees na ko fay yool boo xam ne yool bu kawe la boo xam ne kenn mënu koo natt naka noonu it dana waral ñu koy jéggal ay bakkaar te it dana ko dimbale ci fegal ko ci li nga xam ne mooy sawara te it dana ko may mu mën a tàbbi li nga xam ne mooy aljana kon ci tënk buñ doon xamle lan mooy koor mën nañoo wax ne loolu mooy koor moom koor nag day ab école boo xam ne képp koo xam ne tàbbi na ci dana la forme ci ay mbir yooyu yi ci jiitu mooy école la boo xam ne day day tàggat nit ki ci wàllu euh, wér ndax dana jàngal nit ki ni muy euh, def ba mën a saytu li nga xam ne mooy wérgu yaramam ki nekk ci koor euh, day bàyyi xel bu baax a baax yaramam kon loolu école la boo xam ne euh, da ciy former day former kon li nga xam ne mooy nit ki ci wàllu woowu naka noonu école la boo xam ne day tàggat nit ci wàllu yar ndax day yar doomu aadama ku ne xam ne ne koor wasiila bu am solo ci wàllu yar ndax bakkanu doomu aadama bi nga xam ne lu bari da koy nit ki dana koy faral di def ci ay rëcc-rëcc te bakkanam di ko ko defloo koor dafa bokk ci nga xam ne ñooy yi ko gën a mën a xeex naka noonu it ab école la boo xam ne képp koo xam ne jaar na ci dana ko tàggat ci ni muy jëflanteeg ay mbokkam ni muy jëflanteeg nit ñi ndax koor danay may nit ñi ñuy gën di jaxasoo di gën di daje di gën di gisee kon loolu it dana koy euh, def ci nit ki waaye nag dañ koo am ci yuñ ko tabax bi ci jiitu mooy dañ koo tabax ci muñ ku ne xam ne ne koor moo muñ muñ ñoo ànd kon ki nga xam ne day taxawe koor kooku euh, ab muñkat la boo xam ne euh, dana leer ci kanam incha allah naka noonu it dafay taxaw ci wuuteek bakkan wax naa ko léegi bakkan bokk na ci armo yi nga xam ne moo gën a efficace ngir mën koo xeex li nga xam ne mooy mooy koor naka noonu it euh, day damm li nga xam ne mooy bànneex ni ko yonent bi salaa salaam waxee woon ne képp koo xam ne toll nga ci waxambaane bëgg a denc soxna te amoo loo ko dencee maa ngi lay dénk ngay saxoo koor ndax dana la fekk kon koor it bokk na ci yi nga xam ne daf koy def mooy day damm li nga xam ne mooy bànneex naka noonu day dimbali nit ki ngir mu mën a euh, wormaal topp li nga xam ne mooy nizaam wala li nga xam ne mooy ordre li xam ne moom lañ tëral euh, te ñëpp war cee jaar koor day dimbale nit ki ngir mu mën cee jaar ndax ku ne xam na ne koor dafa am ay règles yoo xam ne moom lañ teg nit ki waru cee jaar saa yoo xamee ne kon mi ngi def loolu rek loolu da koy tàggat ci ngir mu man di wéy ci loolu kon yu baree bari la yoo xam ne koor dañu koy def ci doomu aadama moom koor nag day loo xam ne lu am solo la ci lislaam bëri ay ngëneel yoo xam ne moom la làmboo bari na lool waaye danañ ci jukki ab lim boo xam ne danañ ko tudd ngir firndeel ni koor lu am solo la ci lislaam bi ci jiitu mooy euh, bokk na liy wane ne koor lu am solo la mooy laaf gi nga xam ne suñ borom daf koo jël laafale ko ci boppam maanaam daf koo jël wér ko ci boppam askane la ko boppam wane ne koor moom moo ko moom ndax buñ demee ci sunna danañ fekk ci xadis boo xam ne xadis qudsi la Euh, suñ borom di wax naan doomu aadama bi de lépp loo xam ne mi ngi koy def moo ko moom ba mu des koor koor nag man maa ko moom maa koy fayal sama bopp kon loolu day wane ne koor lu am solo la lu lu màgg la ci lislaam naka noonu bokk na ci li wane ne koor boole euh, bari na ay ngëneel mooy koor dafa bokk ci yi gën ci jaamu yàlla yi jëf yu baax yi nga xam ne moom lañuy ñuy def koor dafa bokk ci yi nga xam ne ñoo ci gën ndax am na benn saxaabi bu ñuy wax euh, abu abu umamata nee na dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi maa ngi lay euh, sàkku ci yow nga digal ma ci nga digal ma loo xam ne bu ma ko defee suñ borom dana ma ci jariñ nee na yonent bi sallallahu alayhi wax ko ne ko maa ngi lay dénk koor ndaxte moom de amul lenn lu mel ni moom kon ci xadis boobu mënees na cee déggee ni kon koor jëf la joo xam ne ju màgg la joo xam ne lu mel ni moom du ma ne amut waaye yombul kon loolu benn la ci yi nga xam ne day tegtale ne koor boroom yi ngëneel la bokk na ci liy tegtale ne koor bari nay ngëneel mooy ne koor pakk la ci lépp loo xam ne bànneex la comme ni ma ko junjee sànq waaye pakk la it ci li nga xam ne mooy sawara te loolu it buñ ci sunna danañ fekk ci xadis yu bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xam la ne koor day fekk nit ki ci bànneex waaye it da koy fekk ci li nga xam ne mooy mooy sawara yonent bi sallallahu alayhi wax na ne as-siyaamu junnatun as-siyaamu junnatun koor pakk la non seulement pakk la ci ay bànneex waaye pakk la ci nit ki def lu mu wërta def wala mu wax lu mu wërta wax moo wax tax mu ne fala yarfas ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم nee na képp koo xam ne ci yéen woor na bu mu jëf jëf ju ñaaw bu mu wax wax ju ñaaw même sax bu nit ñëwee attaqué la di xeex ak yow wala muy xuloo ak yow wala mu lay saaga na ko tontu ne ko mankat dama woor kon loolu yi wane ne koor day fekk nit ki ci lépp loo xam ne wax ju ñaaw la wala lépp loo xam ne jëf ju ñaaw la ni ko mu koy fajalee wala ni ki mu koy fegale li nga xam ne mooy euh, bànneex comme ni mu ko junjee woon sànq ci xadis boobu nga xam ne yonent bi waxoon na ne képp koo xam ne ndaw la bëgg a denc soxna te amut lu mu ko defee maa ngi koy digal na taxaw koor ndax koor googu dana ko mën a fekk waaye it day fekk nit ki ci sawara ndax yonent bi salaa salaam moo wax ne as-siyaamu junnatun wa xisnun xasinun min an naar koor day fekk te ab tata boo xam ne bu sange la di dox diggante nit ki li nga ak li nga xam ne mooy sawara kon koor it day tey nit ki euh, tam tàbbi fi nga xam ne mooy sawara bokk na ci it yi nga xam ne day wane ne ngëneelu koor mooy ci koor mënees na cee jaar ba am yoolub li nga xam ne mooy muñ juñu naa ko sànq koor ku ko wax wax muñ te ci koor daf cee dajee mboolem xeeti yi nga xam ne moo am ci wàllu muñ dañuy wax ne muñ ñetti xeet la muñ ci topp yàlla ku ne xam ne ne jaamu yàlla lu diis la ci bakkan kon ki koy def faw mu muñ ngir mën koo def naka noonu muñ li nga xam ne mooy mooy yàlla bàyyi mooy yàlla yit euh, lu jafe la ndax bakkan daf koo bëgg kon bàyyi gi ko nit kuy bàyyi loolu it day ànd ak muñ naka noonu muñ dogali yàlla yi loolu it kon ñetti xeet yooyu mooy ñetti xeeti muñ yooyu yëpp nag ku ko ku xool koor danga nga ko ciy fekk ndax aji woor ji ku ne xam ne ne koor gi muy def mu ngi topp yàlla te ko xam ku ne xam ne ne koor neexut sama mbokk yi xam nañ ci dara xam nañ ne neexut metti na lool kon def giñ koy def muy diis lool ci seen bakkan lool yi day ànd ak muñ kon loolu muñ la naka noonu bu ñu wooree bàyyi yi ñuy bàyyi mooy yàlla yi ñu leen tere yépp ñu koy bàyyi loolu it day ànd ak muñ waaye nag li ci nekk ci mar li ci nekk ci ci ci ci xiif li ci nekk ci ay maanaam yaram wu tayal loolu lépp nga xam ne suñ borom moo ko dogal mu ànd ak koor te ñu ànd nangu ko di ko def loolu day wane ne ay muñkat ki koy def muñkat la te day muñ li nga xam ne mooy ndogalu yàlla waaye nag suñ borom bu ñu demee ci alquran mu ngi ñu ngi fekk mu doon wax naan innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi gayri xisaab suñ borom de ñi nga xam ne ñooy woy muñkat yi dana leen fay li nga xam ne mooy yoolu ah, muñ goog muy muñ ba mat sëkk te du ci wàññi dara te ànd ak nag du leen xisaab kon loolu yi nga xam ne suñ borom wax na ko ci aaya bi mën nañoo jàpp na it mënees na koo amee ci li nga xam ne mooy koor beneen biit mooy koor day far ay bakkaar bokk na ci njariñ yi nga xam ne am na ko mooy koor day far lépp loo xam ne ñaawteew la lépp loo xam ne it bàkkaar la koor daf koy far ndax jëlee nañ ci saxaabi bu ñuy wax xudayfa mu wax ne jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne fitnatu rajuli fi ahlihi wa maalihi wa nafsihi wa waladihi wa jaarihi yukaffiruha alsiyaamu walsalaatu walsadaqatu walamru bilmaarufi wannahyu an ilmunkar mu ne fitna ji nga xam ne suñ borom daf koy teg jaam bi ci euh, waa këram wala ci alalam wala ci boppam sax wala ci ay dëkkandoom fitna jooju rek mën naa nekk yàlla natt ko àq yi nga xam ne moo dox si diggante ak ñoom matalu ko wala yàlla natt ko mu leen di tooñ wala yu ni mel nee na xeeti fitna yooyu nga xam ne suñ borom daf koy teg jaam bi ci yooyu mu tudd bokk na ci nee na yi nga yi koy kafaara mooy koor koor ak julli ak euh, saraxe ak digle lu baax ak tere lu bon nee na yooyu day kafaara euh, xeet yi euh, fitna yooyu nga xam ne suñu boroom daf koy daf koy teg jaam bi naka noonu koor it bokk na ci ngëneel yi am mooy day ràmm ki koy def ëllëg yowmal xiyaam ndax jëlee nañ ci abdullah ibn amr ibn aas radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na koor ak alquran dañuy ràmm jaam bi ëllëg nee na koor day wax suñu borom ne ko yow sama borom de man mii maa tere woon sa jaam bii lekk ak naan ci bëccëgu weeru koor kon maa ngi lay ñaan nga def ma ma ma ko bu ko defee alxuraan moom it ne ko yow sama borom sa jaam bii de man maa ko tere woon a nelaw guddi kon maa ngi lay ñaan nga nga nga def ma man koo ram kon loolu ñu ci déggee ne kon ki nga xam ne day woor euh, bokk na ci njariñ yi nga xam ne moom la ci jëlee mooy koor googu ëllëg daf koy ràmm yowmal xiyaam naka noonu it bokk na ci euh, yi ñu wax léegi muy njariñ yi mooy koor sabab la ci tabbi aljana junjoon nañ ko sànq ndax euh, buñ demee ci xadiis danañ fekk yonent bi sallallahu alayhi di wax ci xadis boo xam ne sahlum na saad moo ko nettali ne nekk na ci aljana bunt boo xam ne ñu ngi koy tuddee ar rayyaan nee na bunt boobu ñi woor dong ñoo ciy jaaree tabbi aljana buñ duggee ba pare bunt bi dañ koy tëjaat kenn du fa jaaraat dugg aljana kon loolu yi wane ne euh, ngëneel li nga xam ne ñiy woor am nañ ko ci keneen ku ñoom ndax bunt boobu ñoom rek lañ ko jagleel firiwut ne xëy na keneen du dugg aljana waaye ñoom moom danañ dugg aljana seulement waaye dana bon fa ñuy jaaree dugg ñoom dong ñoo fay jaar te keneen du fa jaar kon loolu day wane ne koor kon lu màgg la naka noonu it koor bokk na ci jëf yi nga xam ne suñu boroom dafa dig ki koy def euh, njëggal jikkoo it li nga xam ne mooy yool bu màgg ndax buñ demee ci alquran am na aaya bu xaw a gudd boo xam ne suñu borom am na ñu fa tudd innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitaati wal saadiqina wal saadiqaat wal saabirina wal saabiraat wal xaashiina wal xaashiaat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqaati wal saaimina wal saaimaat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما foofu suñu borom tudd na fi ñu baree baree bari ñoo xam ne nee na suñu borom dig na leen li nga xam ne mooy njëggal dig na leen li nga xam ne mooy yool bu màgg te ñoo ñu mu tudd def cee lim ñi nga xam ne dañuy woor moo xam ay góor lañ moo xam moo xam ay jigéen lañ naka noonu bokk na ci ngëneel yi nga xam ne koor am na ko mooy aji woor ji am na ñaari mbégte yoo xam ne daf koy am mel ni mbégte mi fii la ci àdduna meneen mbégte mi fële la ci àllaaxira ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na aji woor ji ñaari mbégte yoo xam ne dana ko bég benn bi mooy su dogee comme ni ko sama mbokk yi di defee saa yoo xamee ne waxtu dog jot na mbëgte mi ñuy àndal loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la moo xam ne aji woor ju nekk dana ko am waaye ëllëg am na meneen mbégte moo xam ne dana ko am muy saa yoo xamee ne mi ngi dajeeg boroomam kon loolu it di wane solo si nga xam ne kon euh, koor koor am na ko naka noonu it bokk na ci liy wane solo koor mooy xet gi nga xam ne mooy génnee ci gémmiñu aji woor moo dàq fa yàlla xetu parfum bi nga xam ne mooy misk misk li muy neex neex neex xet gi nga xam ne moom la xetu aji woor ji di xeeñ suñ borom xet googu moo ko gënal fuuf te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne waat naa ci yàlla ne xet gi nga xam ne mooy génnee ci gémmiñu aji woor moo dàq fa yàlla li nga xam ne mooy parfum bi nga xam ne moom lañ tuddee moom lañ tuddee misk bokk na ci ngëneel yooyu mooy ñaanuk aji woor maanaam dee su ko delloo lu ñuy nangu la aji woor ji lépp loo xam ne ñaan na ko suñu borom rek ñaan googu daf koy nangu te loolu yonent bi salaa moo ko wax nee na ñetti ñaan a ngi yoo xam ne suñ borom daf koy nangu mooy ñaanu aji woor ak ñaanu kuñu tooñ ak ñaanuk aji tukki koo xam ne dafa nekk ci ci tukki kon yooyu yëpp euh, dafa bokk ci yi nga xam ne kon ay mbir la yoo xam ne day day day wane ne koor lu am solo la bi nga xam ne moom lañ ci mujjal ci yooyu mooy képp koo xam ne euh, bis bi nga xam ne moom la mujj fekkee ci kaw suuf ci koor la ko def kooku insha allah aljana lay tàbbi te loolu yonente bi sallallahu alayhi moo ko wax moo ne man saama yawman ibtigaa wajhillaahi xutima lahu biha daxalal janna képp koo xam ne woor na ab bis boo xam ne daf koy tax te yàlla rekk tax te bis boobu doon bis ba mujj ci ak dundam nee na bu ëllëgee dana dana tàbbi aljana kon yooyu yëpp day wane rek solo si nga xam ne koor koor koor am na ko Euh, ci noonu la ñuy gisee ne kon mbooleem jullit yi nga xam ne moo xam ñi weesu la moo xam ñi ñiy dund lañ moo xam ñi ñëwaguñ la boo xoolee weeru koor moom ñépp ko maasee fonk waaye nag fonk gi nag day am fu muy rawantee moo tax ki nga xam ne mooy sëriñ bi di sëriñ Touba euh, julli yi li ñuy fonk fonk fonk koor moom fonk gi mu ko fonk ak dayo bi mu ko jox moom dafa ràññeeku bu baax a baax a baax te loolu dana dana leer incha allah te loolu li ko waral mooy sëriñ bi moom weeru koor daf koo bëgg moom daf koo bëgg te yàlla rek tax xam nga nit ñi mën nañoo fonk koor gi ndax ngëneel ya ca nekk ak yooyu waaye sëriñ bi moom nee na moom daf koo bëgg bëgg te yàlla rek tax te loolu wax na ko nee na inni uhibbuka yaa shahra siyaami bila ghishin fa ahlan wa tarxiban bila adadi nee na man yow weeru koor dama laa bëgg te bëgg woo ko nag àndut ak benn triche bëggloo goo xam ne bëgg gu set set wecc la bëgg la goo xam ne bëgg gu laab la goo xam ne yàlla rek ko tax yàlla rek ko tax mu waxaat ne washhad bi xubbiika xubba daati ya amali wa kun xabibiya yowma al hawli wal kamadi mu ne yow weeru koor nanga nga ne man bëgg naa la bëgg goo xam ne bëggug jëmm la mooy sa jëmm ji rek laa bëgg bëgguma la ngir xéewal yi nga làmboo bëgguma la ngir li nga xam ne moom la suñu borom digg ci ku la def waaye damaa bëgg sa jëmm ji te yàlla ak tax te bëgg googu li ko waral mooy bëgg gi nga xam ne suñu borom bëgg na ko weeru koor ndax ku ne xam ne ne sëriñ bi dafa bëgg yàlla maanaam toll na ci bëgg yàlla foo xam ne kenn tollu fa ndax euh, da koy wax lu baree baree baree bari ci ay mbindam ahbabtu al alamin ak yeneen wax waaye mu wax ne shahida lii shahru siyaami wa rabia bi xubbi rabbiya wa zax zaxal mabia nee na li nga xam ne mooy weeru koor ak weeru gàmm seede nañ ne man bëgg naa yàlla kon foofu day wane bëggu sëriñ bi yàlla ba pare mu seedaloo ko weeru koor ba pare day wane ne kon bëgg gi suñ borom bëgg weeru koor moo tax sëriñ bi bëgg li nga xam ne mooy mooy weeru koor moo tax sëñ Bachiru di wax ci menanul baaxil xadim nee na sëriñ bi weeru koor ayit la ci moom maanaam feet la ci moom ku ne xam ne ne ñun saa yoo xam ne bisu iit ñëw na bisu mbégte lay doon ci ñun sëriñ bi nag moom weeru koor bu ñëwee maanaam weeru mbégte lay doon ci moom ndax feet la koy jàppee iit la koy jàppee te nee na it sëñ Basiru mooy mooy kon nay wax nee na dafa jàppee weeru koor ab soppe daf koo jàppee ab xarit ba pare daf koo dafa mel ne sax da koo jàppee jëmm joo xam ne da day jàkkaarlook moom nga xam ne soppe la ko def boo xam ne dafa mel ne jëmm la joo xam ne dafa jàkkaarloog moom taxaw di ko gis naka noonu bokk na ci liy wane ne sëriñ bi ku bëgg weeru koor la muy ku ne xam na ne sëriñ bi ku nekkoon ci ay jafe-jafe la jafe-jafe yu nekk jàmmante na jàmmar la na ak moom te yooyu yi ci gën a fës mooy bi nga xamee ne génn nañ ko Touba bi euh, bi mu génnee boog fii jëlee ko Sénégal yóbbu ko ci géej gi Gabon weeru koor bi nga xam ne moo ko fa njëkk a fekk ku ne xam ne ne bokk na ci weeru koor yi gën a metti waxuma ci sëriñ bi rek waaye ci àdduna sépp ndax weeru koor la woo xam ne sëriñ bi woor na ko ba mu jeex te jëfandikoo dara mel na ne mel na mën nañoo wax daanaka jëfandikoo dara ndax sëñ Basiiru nee na saa yoo xam ne dog jot na sëñ bi imma mu naan tuuti ndox ngir dog kooram wala mu dem jël xobi garab yi di ko muucu ngir mën a dog kooram nga xam ne koor gi yépp sëriñ bi noonu la ko noonu la ko waree waaye ànd ak lépp koor bi muy ñëw lam doon jàmman maanaam lam doon jàmmaar lool ca nasaraan sa ci ci ay ay ay ñaawteef ak i loolu lépp daf koo fàtte di tatakal weeru koor wi naan ko yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi nga xam ne weeru koor wii ñëw tax na mu fàtte mbooleem li nga xam ne moom la doon jàmmaarloo euh, aka di ko di ko di ko daj muy jógee ci ci tubaab yi moo tax suñ Basiiru nee na weeru koor woowu bi mu ñëwee nee na in sharaxa sadruhu nee na maanaam dënnam dafa dafa leer maanaam dafa fàtte mbooleem li nga xam ne moom la doon moom la doon jàmmarloo ci ay jafe-jafe wartaaxat nafsuhu bakkanam it noppalu nga xam ne moom koor gii di ñëw nga xam ne li muy metti metti ci moom nooflaay la ci moom waaw kon loolu di wane ne sëriñ bi euh, maanaam euh, yitte woon na loolu weeru koor bëgg ko lool sopp ko lool moo tax muy wax naan fa jatanii yaa xalili bi sururi huna inda al ida dagtirabin fantafa kadari nga xam ne weeru koor woowu bi muy ñëw mu ne ko yow weeru koor de bettee nga ma ak mbégte moo xam ne ma maa ngi fii ci samay noon mbégte moom bi mu ñëwee mbooleen li ma metti woon maanaam dafa dafa deñ nga xam ne lépp lu ko metti woon ci ay tiis ci ay mbugal yoo xam ne doon na ko daj mu jóge ci tubaab bi bi weeru koor woowu ñëwee daf koo fàtte ma fàttali ne weeru koor woowu ni ma ko waxee sànq bokk na ci weeru koor yi nga xam ne doomu aadama mosu koo woor ndax woor weer lëmm woo xam ne maanaam heure bu dog jotee imma nga wut tuuti ndox naan ko wala nga dem wat jël ay xobi garab di ko màcc ngir mën a dox sa koor yaakaar naa koor googu moom du koor goo xam ne koor gu neex la waaye ànd ak loolu lépp sëriñ bi moom mbégte la ko def maanaam ngir bëgg gi nga xam ne bëgg na ko weeru koor kon loolu moo ñuy may ñu dugg ci tomb waxtaanee li nga xam ne mooy yittewoo gi nga xam ne sëriñ bi yittewoo na ko li nga xam ne mooy weeru koor ni ma waxee sànq sëriñ bi bëgg gi nga xam ne moom la bëggoon weeru koor moo taxoon saa yoo xamee ne mi ngi ñëw daf ko doon fuglu maanaam yàkkamti mu ñëw lool nga xam ne ànd ak mbégte moo xam ne mënees na koo misaalee koo xam ne dafa amoon soppeem boo xam ne toog na at yu baree baree bari gisu ko ñu ne ko mi ngi ñëw ni muy yàkkamtee mu yegsi nga xam ne bët bu set day yaakaar ne tey la war a ñëw cofeel googu muy àndal sëriñ bi saa yoo xam ne weeru koor mu ngi ñëw cofeel googu moom la doon àndal waaye nag bu koor masaa ñëwit bay dem lu mu daa bég ci bu daa ñëw noonu lay tii amee tiis ak naqar ci buy dem ndax ci même koor googu nga xam ne mooy koor gu metti googu bi muy dem xam nga bi muy ñëw ci la taalif yaa xëyra doy fi waaye bi muy def ci la taalif bi muy dem bi koor gi jeex ci la taalif yaadal bushaaraati yaadal bushaaraati boobu ci muqaddima bi wala ci tarjumaan ji mi ngi ciy wax naan allahumma inna xabibi wa xalili wa tabibi shahra ramadana araada alinsiraafa anni yowma althulathai ilayka maa yow yàlla sama borom sama soppe bii sama xarit bi sama médecin bii nga xam ne mooy weeru koor moom de nee bëgg na maa wan gannaaw dem jëm ci yow te ànd ak loolu lépp man yokkatuma ci moom te it wanuma ko ginnaaw nga xam ne koor gi li muy métti métti métti sëriñ bi moom doyulu ci ngir cofeel gi nga xam ne euh, làmboo na ko kon ci noonu ñu xam ne sëriñ bi kon yittewoo li nga xam ne mooy woor moo xam koor ak maanaam weeru koor wala woor ci boppam euh, yittewoo boo xam ne bu am solo la yittewoo googu bi ci jiitu mooy xamle lan mooy koor jàngale ko sëriñ bi ci mboolem téeram yu bari yi nga xam ne dafa ciy jàngale li nga xam ne mooy euh, fiq buñ ci demee danañ fekk lu baree baree bari muy jàngale euh, mboolem atte yi nga xam ne dafa aju ci wàllu koor atte yi nga xam ne sharia moom la tër ne képp koo xam ne euh, jaar nga ci mën nañoo jàpp ne sa koor baax na waaye képp koo xam ne jaaru ci mën nañoo jàpp sa koor baaxut kon noonu nga xam ne noonu la ko charia jàngale sëriñ bi noonu la ko yaxalee ci ay téeréem muy wane ne kon jox na ko yitte waaye yemu ci loolu ni mu ko jàngalee ci ni ko a jàngalee noonu la ko jàngalee ci ni ko xaqiqa jàngale ndax jaamu yàlla bu mu mën di doon day ñaari xeet da ñaari maanaam ñaari kana anam kanam benn bi mooy ni ko charia gisee charia danaan la boo respecté lii maanaam wàcc na la dootoo kenn du sàkku ceeb boo koy defar xaqiqa moo naan la boo ko defee nii mooy tax maanaam jeexit ya ca mën a juddoo nga mën koo am sëriñ bi nag loolu da koo jàngale ndax bu ñu demee ci masaalikul naan danañ fekk sëriñ bi di jàngale fa dëgg-dëgg koor di wax naan xamal ne koor du bàyyi lekk ak naan kese waaye mooy nga bàyyi lépp loo xam ne lu bon la wa ba si sax xalaat boo xam ne xalaat bu ñaaw la nga bàyyi ko di ñu xamal sax buñ dogee ni ñu war a jëfandikoo ñam wi ak yu ni mel yooyu yëpp di wane ne li nga xam ne mooy raaya bi nga xam ne moom lañ jublu ci wàllu koor wala boog jubluwaay bi nga xam ne mooy at bi nga xam ne moom lañ suñu borom dikk ci alquran ne bu ñuy woor danañ ko am sëriñ bi dañuy xamal ne taqwa googu mënuñ koo am lu dul ne dañoo defee koor comme noonu nga xam ne moom la ko jàngalee ci masalikul jinaan mu dolli ci am na Euh, aaya boo xam ne wala lenn ci wax yàlla yoo xam ne da ko doon tafsir muy wa an ta tasuumu xayrun lakum nga xam ne ci ayatu ayatu siyaam la bokk fi suñu borom di waxee naan ngeen woor moo gën ci yéen sëriñ bi doon na ko firi di wax ne as-sawmu lahu zahirun wa batin nee na koor ñaari xeeti koor moo am koorug zahir ak koorug batin nee na zahiruhu tarkul akli wa shurbi wa ma waalahuma fi nnahaari nee na koorug zahir mooy nga bàyyi lekk ak naan ak lépp lu ni mel ci bëccëgu weeru koor nee na loolu mooy koorug zahir mu ne wa baatinuhu alsawmu an kulli ma yudxilu nnaara min al aqaidi wal iyaadu billahi taala nee na koorug baatin nag bu ñu ko waxee mooy nga bàyyi lépp loo xam ne day tax nit ki tàbbi sawara kon sëriñ bi moom ni mu déggee koor sax bokkut rek ni ñu ko déggee déggeewu ko rek mooy ngay woor bàyyi lekk ak naan bëccëg ba maanaam euh, fajar ba ba jant soo waaye ni mu ko déggee mooy nit ki dundam gépp koor la war a nekk non seulement koor gee nga xam ne mooy koorug zahir gi nga xam ne farata la ci moom ci texte yooyu daf koo war a def waaye koor gi nga xam ne mooy gën a nekk farata sax mooy fexe ba bañ a tàbbi sawara ndax nit ki lii yitteem mooy bañ a tàbbi sawara kon lay tax mu mën koo am te mooy wan gannaaw lépp loo xam ne mën na laa tàbbal sawara sëriñ bi nee na loolu mooy koorug baatin loolu dëgg-dëggi koor mu teg ci ne wa sawmul lisaani sawmuhu an kulli ma yuaddi ila naari min al aqwaali nee na wooru làmmiñ mooy nga bàyyi lépp loo xam ne mën na laa tàbbal sawara ci ay wax mu ne wa sawmul jawaarixi sawmuha an kulli ma yuaddi ila naari min al mu ne kooruk cër yi nag mooy nga wan gannaaw bàyyi lépp loo xam ne mën na laa tàbbal sawara ci ay jëf mu teg ci ne wal qalbu yaataqidu wal lisaanu yaquulu wal jawaarixu tafaal kon nee na xol day fas làmmiñ di wax cër yi di jëf kon nit ki bu fexee ba ab xolam mu bañ cee fas loo xam ne lu koy tàbbal sawara la aw làmmiñam mu bañ cee wax loo xam ne lu koy tàbbal sawara la ay cëram mu bañ cee jëf loo xam ne lu koy tàbbal sawara la kooku mooy ki woor dëgg-dëggi koor gi nga xam ne mooy koor baatin lool la sëriñ bi wax naka noonu it buñ demee ci euh, njàngaleem sëriñ bi danañ fekk lu baree baree bari muy am ay wax yu am solo yoo xam ne daf koy wax ci koor loolu it di wane it yitte ji nga xam ne jox na ko koor moo tax saa yoo xamee ne weeru koor jege si na rawatina weeru shaabaan bu duggsee comme ni ko sëñ Bachiru nettalee nee na sëriñ bi daf daa taral lu baree baree bari ci waaraay waaraate yi nga xam ne moom la daa def jamono yëpp danaa daa waaraate waaye neen saa yoo xam ne chaabaan dugg si na waaraate yooyu daf koy yokk naka noonu it daa moytu loolu baree baree bari li nga xam ne mooy fo da ko doon moytuloo taalibe yi saa yoo xamee ne weeru chaabaan dugg si na te loolu lépp lim ci jublu mooy di leen waajal ngir bu ñu mën a tàbbi ci weeru koor ak melo woo xam ne melo bu baax lay doon nee na it daawut toog jataay bu mu mën di doon lu dul ne daan na fàttali taalibe yi pexe yi nga xam ne iblis dana koy def ci ñoom moo tax nee na mu daan wax naan mu ne duumu ala tafaqudi qulubikum wa xabsi jawaariikum jawaarixikum mu ne nangeen sax di nemmeeku seeni xol tey tënk seeni cër mu ne fa inna al aduwa qad alima biqtiraabi xabsihi ndax noon bi nga xam ne mooy iblis xam ne ne waxtu wiñ ko war a jàppee jéng ko jege si na te mooy weeru koor ndaxte li annahu yuxbasu ida daxala shahr ndax moom iblis comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxee ci xadis nee na saa yoo xamee ne weeru koor ñëw na dañ koy tënk dañ koy jéng mu ne looloo tax moom iblis fa huwa yaxrisu kulla alxirsi ala an yufsida alaykum diinakum wa an yabdura fi qulubikum buzurahu li tanmu fiiha fala tatamakkanu min mahwiha mu ne looloo tax iblis ginnaaw xam ne ne weeru koor maanaam dañ koy jéng ba du mën a def dara moo tax saa yoo xam ne jub si na day fexe ba lu mu mën dana ko def ngir yàqal jullit ji li nga xam ne mooy seen diine nam koy defee nag mooy nee na day am ay jiw yoo xam ne daf koy jëmbat ci seeni xol te nee jiw yooyu day màgg saa yoo xam ne weeru koor ñëw na kon moom nekku fa moom iblis sax jégg jéng nañ ko waaye ci biir koor gi nee na jiw yooyu nga xam ne moom la jëmbat ci xolu jullit bi jiw woowu day màgg saa yoo xam ne jullit bi sàggan na moo tax nee na sëriñ bi ne li tasful afidatu wa tasluxul waaridaat al mawa euh, li waaridaati mawaahib nee na nag na ngeen moytu iblis ci pexem yooyu ngir seeni xol mën a sell ngir it mu mën a dëkku dékku maanaam may yu màgg yooyu nga xam ne mooy jógee ci suñu borom moo tax mu ne woon alxadara alxadara min al adu moytu leen bu baax a baax noonu boobu nga xam ne mooy iblis lu tax nee na fa innahu mushrifun ala qulubikum yataraqabu gafalaatiha li yulqi fiha badra yi ndaxte nee na moom iblis mi ngi tiim suñuy xol eh, di di di di fuglu rek bañ sàggan ngir mu mën cee sotti jiw woowu nga xam ne moom lay sotti ci eh, doomu xolu doomu aadama yi nga xam ne dañoo sàggan daana wax it naan moom sëriñ bi inna shaytaana yaqulu ida jaa axiru chaabana fala budda min zaadin li kulli musaafirin seytaane saa yoo xamee ne nee na eh, weeru chaabaan mi ngi waaj a jeex day wax nit ñi naa leen tukkikat bu nekk kat war naa am ab yóbbal loolu lu mu si jublu mooy maanaam comme da ngeen doon mooy ba weeru koor mu ngi ñëw xëy na mooy du yomb war ngeen a mooy mooy gu bari goo xam ne yóbbal lay doon ngeen mën koo yóbbaloo balaa weeru koor we ñëw mu tegaat ci ne wa yaqulu ida stahalla shawaalu wajaba qadaau ma faat saa yoo xam ne weeru korite ñëw na muy wax nit ñi naa leen comme da ngeen a am lu leen faatoon ci weeru koor yi mooy la ngeen waroon a mooy yàlla mooyu leen ko kon la leen faatoon kat war ngeen ko mën a fay kon loolu di ay pexe yoo xam ne seytaane daf koy def ci xolu doomu aadama yi ngir rekk dox seen diggante koor ngir njariñ yi nga xam ne làmboon na ko bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi daana ko wax nee na inna malikan min almalaikati yatuufu dunya bi kulli laylatin min layaali ramadana wa yaqulu man yas man yasalu xata yonta nee na guddi gu nekk ci weeru koor am na malaayika moo xam ne day wër ci mboolem àdduna di wax naan ana kan mooy laaj ngir ñu jox ko kon loolu di feddali ne euh, maanaam koor jamono joo xam ne jamono yi nangu ñaan la rawatina ci guddi yooyu kon nañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ko di ko fonk na ko noonu sëriñ bi daana wax na it ne xuruufu rama xuruufu chahri ramadana thamaniyatun wa abwaabul jannati thamaniyatun nee na xaraf yi nga xam ne moo lam moom la baatub chahru ramadan lamboo juróom-ñett lañ na ko noonu aljana juróom-ñetti buntu ñoo fa am mu ne kon wa man ataa allaha fi ramadana fala tuxlaqu lahu abwaabul janna képp koo xam ne topp na yàlla ci weeru koor kon deefu ko tëjal benn buntu ci bunti aljana kon loolu di wane ne sëriñ bi mi ngi fonk euh, soññee bu baax a baax a baax ngir ñu fonk li nga xam ne mooy weeru koor daana wax naan chahru ramadana wala ramadana chahrul matar ay mataru rahma nee na ramadan mooy weeru taw mu ne taw bi lim ci jublu mooy tawub yërmande mu teg ci ne it wa ramadaanu chahrul xasaad ay xasaadu niama koor mooy weeru góob mu ne lim jublu ci góob gi mooy góob ay xéewal kon lii ñuy wax naan woor koor weeru promotion la mooy loolu muy ay xéewali nee na neen moo ci nekk yoo xam ne nit ki war nay farlu ba di ci euh, ba di ci góob li gën lu gën a mat lu gën a mat ah fi nga xam ne moom lañuy tëjee ci ponk bi mujj mooy jagle yi nga xam ne suñu borom defal na ko sëriñ bi ci weeru koor am na mbir yoo xam ne sëriñ bi suñu borom moo ko defal muy ay jagle yoo xam ne am na ko yenn yi di yoo xam ne ci weeru koor la ko amee yenn yi muy ay mbir yoo xam ne am na ko te nee na weeru koor moo ko ko jox kon yi ñuy njëkkee mooy yi nga xam ne sëriñ bi daf ko am ci weeru koor te yooyu bi ci jiitu mooy gis gi nga xam ne gis na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci maanaam lu ay nelaw nga ne mooy gis gim ko njëkk a gis loolu ci weeru koor la ko ko suñ borom ku ne xam ne ne sëriñ bi aggoon na ci sopp yonente bi sallallahu alayhi foo xam ne benn yitte rek la amoon ci jamono jooju mooy jàkkaarloog jëmmam ja ñaan ko suñ borom lu baree baree baree rek moo tax mu daan wax naan kulla zamanin la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa argabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz nee na jamono ju man di doon lenn rek laa am benn yitte rek rek rek laa am muy jàkkaarloog jëmmam jëmmam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom man xam naa ne lii ma lay ñaan lu màgg la lu rëy la lu jafe la waaye nag xamal na yow dara jafewut ci yow ci noonu la ko suñ borom mayee xéewal googu ci weeru koor wi nga xam ne mooy ramadaanu ay sachin di atum 1311 bi nga xamee ne mi ngi nekk Touba di li itikaaf ca Daarul Kuddóos foofu la ko suñ borom mayee fa la njëkk a gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam joo xam ne du gisu ay nelaw kon loolu benn la ci yi nga xam ne sëriñ bi am na ko muy ay jagle yoo xam ne am na ko te mu amee ko ci weeru koor ñaareel bi mooy wirdam wu màgg woowu nga xam ne moom la am mooy wirdul maxuud bi ah, al maxuud min allaahi bi waasitati rasul nga xam ne mooy wirdu yoonu murit wirdu woo xam ne dafa lamboo moo leen gaa yu baax yi muy wirdu woo xam ne euh, wirdu wu mat la woo xam ne ku ci jàpp mën na ne mën naa ne maanaam soxlaatoo beneen wirde ndax lépp loo xam ne nekkoon na ci yeneen wirde yëpp sëriñ bi suñu borom defal na ko ci biir wirde woowu wirde woowu nag euh, suñu borom mi ngi ko jox sëriñ bi ci biir weeru koor bi nga xamee ne mi ngi ca euh, fañ ko yóbboon ci ñaareelu yoon muy Mauritanie ci biir weeru koor ci bisu fukk fan ak juróom-ñaar su ma ci la ko yonent bi sallallahu alayhi dikkal indil ko wirdu woowu nga xam ne suñ borom moo ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko sëriñ bi kon loolu lenn la ci li nga xam ne euh, sëriñ bi am na ko ci euh, biir weeru koor moo tax lenn ci ay gëstukat di wax naan euh, bayit yooyu nga xam ne moo nekk ci wakkaana xaqan sëriñ bi di wax naan samadu qad awsaltali fi ramadan ma rumt min ka qablahu bi fayadan ak bi mu naan malakanil malikul malikul malikul ladi lahu tamliku ajran kabiran wa thawaban wa jaza wal waadu li fi ramadan na jaza bayit yooyu am na ñu ne sëriñ bi mi ngi ciy junj li nga xam ne mooy wirdu woowu nga xam ne am na ko ci biir weeru koor woowu te lu yanu maana la ndax xasida gi nga xam ne mooy wakkaana xaqan sëriñ bi ma ngi ko woyee foofa ca Mauritanie kon loolu di wane ne euh, xéewal la goo xam ne sëriñ bi am na ko te mi ngi ko amee ci biir weeru koor naka noonu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi am na ko te mu amee ko ci weeru koor mooy moom loo gi nga xam ne suñ borom moom loo ko moom loo na ko alquran sëriñ bi wax na ne suñ borom moo ko jox alquran muy moomeelam te loolu suñ borom ak ko jox te loolu yi nee na ci biir weeru koor la ko amee ndax moo ne ilaya rabbi salaba alqurana fi ramadana fa shukuri ana nee na suñ borom de wammat na alquran jox ma ko te loolu yi ci biir weeru koor la amee mu ne kon nag war na kon ma sant bokk na ci it yi nga xam ne it ay mbir la yoo xam ne suñu borom jox na ko ci weeru weeru koor mooy ziyaara bi nga xam ne waa ahlu badrin ziyaara nañ ko ko sëriñ bi nee na ci biir weeru koor la ko waa ahlu badrin ziyaara si moo wax ne inna alladina shahidu fi lmaaraki wa jahaduu kulla nafuudin mushriki naxaw ila ziyaaratiya fi ramadan dai li wajhi man xabaabil fayadaan muy gaa yi nga xam ne ñoo bokkoon ca xeexub xare badar nee na ñooñu de ñëw nañ ziyaare ma ca ziyaare si ma ci weeru koor wii muy weeru koor wi nga xam ne ci la doon bind xasida googu naka noonu yi bokk na ci yi nga xam ne suñ borom defal na ko ko te mu am ko ci biir weeru koor muy nee na li nga xam ne moom la jaayante woon ak suñ borom njëg gi nga xam ne moom la ko suñ borom fay nee na ci biir weeru koor la ko suñ borom jox kon njëg gi nga xam ne moom la suñ borom jëndee lam jaayante woon ak moom nee na ci biir weeru koor wo la ko la ko amee moo tax mu ne wasala lii fii ramadana wa rabia samanu ma anni ya inda allahi bia nee na ci biir weerukoor ak weeru gàmmu ci laa jotee njëg yi nga xam ne moom laa mooy li ma jaayante woon ak suñu borom naka noonu it nee na it ci biir weeru koor ci la amee mbootum kun fa yakunu ak ismullahi al muy yoo xam ne yu màgg la ndax kun fa yakunu mooy dara ji nga xam ne jaam bu fa àggee lu mu bëgg rek maanaam day am ndax suñu borom da ciy ànd ak moom ismullahil azam di turu yàlla woowu nga xam ne lépp loo xam ne jaam bi ñaan na ci suñu borom rek daf ko ci daf ko ciy nangul te sëriñ bi nee na ci biir weeru koor la amee ñaar yooyu mu ne fajaani fi ramadan al azami bi kun wa bismihi al azim al azami nee na suñ borom bettee na ma ci biir weeru koon koor ci li nga xam ne mooy kun muy kun fayakoon ak ismullahil azam kon ci biir weeru koor la amee loolu kon loolu lenn la ci li nga xam ne sëriñ bi am na ko te mu ne ci biir weeru koor la ko amee mu am yeneen mbir nag yoo xam ne sëriñ bi nee na weeru koor ci boppam moo ko ko jox yooyu bokk na ci nee na lépp loo xam ne ay mébét la woon yoo xam ne amoon na ko koor moo ko ko jox naka noon it yi nga xam ne moo la doon jaamarloo nee na koor moo leen not mu ne chahriya chahru ramadana chahriya chahru ramadana jamaa liyal muna walil ida qad qamaa nee na sama weer wii nga xam ne mooy weeru koor de moo ma dajale lépp loo xam ne ay mébét la yoo xam ne amoon naa ko te it bépp noonu boo xam ne amoon naa ko it moo ma ko notal mu waxam ne it weeru koor it jox na ko ay barke yoo xam ne yu bari la ay barke yoo xam ne yu baree bari la yoo xam ne nee am na ko te weeru koor moo ko ko jox mu ne wajjahal yi chahru siyaami al barakaat fii sakanaati abadan wal xarakaat nee na weeru koor kat jëmale na ci man ay barke moo xam ci sama dal la moo xam ci sama yëngatu la te loolu yi luy wëy la ba faw mu waxaat ne it ne weeru koor jox na ko loo xam ne gàcceel na wala wedam loo na képp koo xam ne ab waliyu la nee na weeru koor jox na ma loo xam ne wedam loo képp koo xam ne ab waliyu nga yaquudu lii shahru shahru rabiul awwali wa ramadana mufhiman kulla wali nee na weeru koor ak weeru gàmmu daal wammatal nañ ma loo xam ne dana wedam loo képp koo xam ne ab waliyu la mu waxaat na it ne weeru koor jox na ko loo xam ne gàcceel na lépp loo xam ne jaamu yàlla la bu nit di def wala taxaw yoo xam ne taxawaayu guddi la yoo xam ne nit ki la koy def mu ne yaquudu li chahru siyaam muxjila saayin wa qiyaam wa fawqa ajri di qiyaam inda qadimin quddima nee na weeru koor de wammatal na ma loo xam ne gàcceel na jaamu yàlla wala taxaw guddi aji taxaw guddi jox may jox na ma may loo xam ne féete na yoolub ki nga xam ne day fanaane taxaw guddi mu waxaat ne it ne weeru koor wammatal na ko li nga xam ne mooy tabuk suñu borom ku ne xam ne ne tabuk suñu borom euh, kenn xamul nu mu toll kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yam nee na tab googu weeru koor moo ma ko wammatal moo ma ko jox nee na jazaba chahru ramadana lii karam baaqin qadimin fa anaani fa ana iyan saram nee na weeru koor na ma bijjil na ma tabuk suñu borom mi nga xam ne aji des la aji jiitu la moo tax ba lépp loo xam ne coono la boo xam ne amoon naa ko walbatiku na wane na gannaaw kon mbokk yi lii ñu fi wax lépp day wane ne sëriñ bi lii nga xam ne mooy wooru weeru koor fonk na ko lool jox na ko dayo boo xam ne ah, kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yam liñ fi gis lépp day wane ne sëriñ bi cofeel gi nga xam ne am na ko ci weeru koor moo tax mu am maanaam mu jox ko wàccuwaay wi bi mu ko am bi mu ko jox cofeel gi mu jox weeru koor it li koy war li koy mooy cofeel gi nga xam ne am na ko ci suñu borom am ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi lii mooy li nga xam ne waajoroon nañ ko ci tomb bi nga xam ne moom ngeen sàkk woon di yeesal mbégte mi nga xam ne am nañ ko ci boole gi ngeen ñu boole ci liggéey bu am solo bi ndax lii liggéey la boo xam ne euh, liggéey mënu ko féete ndax tasaare xam jàngale képp koo xam ne ñu ngi la ci woo rek ndimbal la koo xam ne ñu la koy dimbale kon ñu ngi euh, yeesal cant gi bu baax a baax a ci mbokk yëpp rawatina suñu xaadim mi nga xam ne moom lañ doon jokkool di sant bu baax wa axiru daawaana an alhamdulillah wasalaamu alekum wa rahmatullahi wa waxtaan yi moom wax dëgg sëñ Sam mi ko doon taxawee da koo peeg maanaam da koo matal daanaka kenn amut luñ ci dolli xanaa man kay bu ma sañee def taaliq fi may jëm rek mooy xanaa sax du ma sañee soññee waaye ñaanal ñi taxawee lii suñ boroom gën leen a dëgëral te xel day dal ci yu mel nii ndax njort day dem ci ni suñ boroom boolewu ñi ca ñi alquran di wax ni fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabaau shahawaat ndax bu fekkee dañoo nekk ci ay dëkk suñ maam ya sañcoon ko te yàlla rekk taxoon mu ñu sanc ko ak jaamu yàlla ñu ñëw de xeeñ seen bor di dundal lenn ca loola loolu xel mën naa dal ci ni suñ borom kat mag ñuy teg ci yoon waa maam yaa tegoon yàlla nañ ci suñ boroom defal ñu tase ci seen ngërëm ak ngërëmul suñ boroom jotaay bii nga xam ne nii ni académiyatu daaril karim moo koy taxawee ah mu nekk nag loo xam ne nii danga jur mbigte ci xolu bépp jullit waaye ci xolu bépp murit ngir ne liggéey bi nga xam ne nii sëriñ bu mag bi féetale woon na ko sëriñ Masamba daa nekkoon liggéey boo xam ne nii mënee su koo féetale koo xam ne amul xam-xam wala xam-xamam daa néew ndax li gën a jafe ci araab moo di maas mooy li nga xam ne nii bu yàqoo lépp yàqu waaye bu baaxee lépp baax te moom la sëriñ bu mag bi féetale woon sëriñ ma Masamba kon njabootug sëriñ Masamba lu ñu mën a yëngu rek buñ yëngoo ca xam-xam dañuy wax ne dellu nañ ca lañ nekkoon wala dellu nañ ca lañ war a nekk kon ñu ngi leen ciy sant ci seen taxawaay bu baax a baax di ñaan suñ borom mu gën leen a kàttanal bañ daje ceeg liñ ciy séentu lépp. nuyu mbokk jullit yépp nuyu mbokk taalibe yi di leen masoo coono ci koor gi di doole sant yàlla suñu borom moom mi ñu fekk waat bis nii di tàmbali suñu kàddu nag ci di sant ak gërëm di ko tàmbali ci suñu kilifa di kilifa jataay bii di suñu Seexuna Mbàkke moom suñu Mustafaa Masàmba mi ngi nii toog. ak sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdou Xabir ñu ngi nii toog ak ñun àndal ñëpp ñoo fekk si jataay bi di sant mbokk yeeg taalibe yi ñëpp ak comité organisation bi ne ci organisation bi ginnaaw loolu nag ñu ngi sant yàlla ci bi ñu mayee thème bi nga xamante moom lañ tànnoon tey joxoon ko sëñ bu Bousso mi nga xam ne ni mu ko doxale defe na ko nu kawe suñu jot lool ak sëñ Makhtar Sylla ak sëñ Alaaji Mbàkke moom sëñ Moustapha Massamba tabaarkàlla ci kàddu yi waxtaan bi neex na lool nin ko jot woon nin ko defee rek gën naa kaay suñu jot noonu jaalallahu na yastamiuuna xawla fa yattabiuuna ahsana yal nañu yàlla suñu borom defal ginnaaw bu dégloo kàddu yi yàlla nañ ko mën a jariñoo te ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekk waat bis bi ñu jëm ci jàmm ak salaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waxtu yu daa jot moo tax ñu toll ñu jéggul baax a baax jërë ngeen jëf tubaarikàlla bismillaahi yan mulhaai bila manaahi wala intihaai bismillaahi yan mulhaai bila manaahi wala intihaai bismillaahi yan mulhaai بلا مناهي ولا انتهاء